ñoo ngi ci combat spécial bi mbokk yi Boy Sadio Thiatou Dionkane Boy Sadio am na benn avertissement Thiatou Dionkane arbitre sifflé na Boy Bawol Caatu Jonkaan écurie Bawol Boy Sadio écurie Lansar Caatu Jonkaan mooy féete à gauche Fils de moom la ñu jàkkaar lool ñoo ngi lewaatoo Boy Sadio Caatu Jonkaan ñoom ñaar ñoo ngi xoolante ci biir bët Caatu Jonkaan Boy Sadio lewaatoo noonu ba mu neex ñu dagg lewaatoo bi demee te ñaari pas taxawaat ñu ngi Caatu Jonkaan daa mel daa bëgg a dem Boy ngi taxaw di ko déglu Caatu Jonkaan Boy Sadio caatu booy Sadio nga koy déplacé waaye caatu jonkaan booy Sadio jàpp na ci loxo ba booy Sadio jàpp na ci loxo ba day bañ mu rëcc dóor na ko daw na ronu ko oh dóor ba baaxul dugg ba baaxul caatu jonkaan booy Sadio dóor na ko dóor na ko caatu jonkaan jàpp na ca téere xeex nanu ñoo ngi xeex waaw caatu jonkaan Boy Sadio door na ko tuuse waa mais jël na tànk ba jël na tànk ba da daan caatu jonkaan dëj na ko dëj na ko Boy Sadio daan na ko Boy Sadio daan na caatu jonkaan Boy Sadio daan na caatu jonkaan nee na baleen ma Boy Sadio am ndam Boy Sadio daan na ko Boy Sadio daan na ko Boy Sadio daan na Caatu Jonkaan Boy Sadio daan na ko waaw waaw jël la jël la daan na ko Boy Sadio daan na Caatu